automatiquement ce régime day effondré wu ni muy effondré woo mooy ni muy effondré woo mooy sa biir parti dina tas te loolu Omar Youm moo ko wax sa groupe parlementaire ñi la doon déggal dootuñu la déggal parce que bi ngay gouverner doole ak doole rek nga doon gouverner suñ demee nag ba gis ni amatoo doole ñi lay déglooti bariwul fi mu toll nii ñi ñëpp xam nañ ni pare nga waaw sa coowal parti nga war a dem lijjanti mais déglu ngeen ko nag ci discours bi wax na ci wax yu doy waar parce que Macky Sall dafa fas yéenewul génn par la grande porte nee naa leen bu leen jàpp ni tey victoire bi am nañ ko déedéet déedéet benn victoire lañ am on n'a pas gagné la guerre peuple sénégalais moo am victoire tey empêché empêché ko mu nekk candidat waaye lan mooy suite bi loolu mooy guerre bi mooy moom nan lay def ba saxal fi koo xamante ni ci ay waawam lay wéy lum ay santaaneem te loolu pour mu am mooy il faut mu yeggali diilam bii muy bëgg a defi assemblée semaine bii di ñëw woote na ko wax na ko diil boobu nag dama bëggoon ñu taxaw ci tuuti la mu nar a defi assemblée na ko député yi xool bu baax ñi nga xam ne ñoo dugg ci diil wi diil bi mu ne ñoom dina leen delloo seen droit nañu moytu may ko bunt mu laal ci constitution bi loo xamante ni dépassé na delloo nit ay droit wam parce que ñepp xam nañ ni tay ji Macky Sall wa këram kenn nelawul dégg nga leen ñi ngi melni ko xamni dañ leena taggé sen taw wa nelawuñ parce que tit nañ xam nañ liñu def ta xam nañ ni benen président bu ñëwé liñ def mënu ko sëgg donc guerre bi commencé gul de xex bi mu ngi soga tambalé moy nan la ñom ñepp nak légui di def ñimu andel di deal, pour out candidat bo xamanteni dafay gagner, ñu menons continuer donc les sénégalais yi xamuñu ko sax wala sénégalais yi faalewuñu ko mais utiliser encore une fois euh, code nee na day changer parrainage bi nañ dem déglu lan lay la constitution bi day modifier constitution bi su la loi bi nga xam ni day permettre rek ñaari nit ñu am candidat ñu ñu ñu nekk ci élection yi nañu xool bu baax gëstu say saytu bu baax lan lay def assemblée mbaa du fi voté lu loo ñoom ak li ñu def day permettre kenn du leen ci mën a topp loolu lépp lu ñuy seet la waaw lépp lañuy ñuy gëstu parce que ñii mu bëgg a baal kenn xamul ban yoon la bëgg a jaar bu jaaree assemblée ay amande lañ leen teg ay amande lañ leen teg amande peine la ku ci ki ki yoree état bi nee nañ état du Sénégal 138 milliards loolu c'est une peine d'amende amande peine la grâce du ko dindi waaw am amnistie rek moo ko mën a dindi donc nañ leen seet bu baax li muy waajal. beneen bi ci topp mu amal ñu solo mooy nan la ñuy def ñoom ña ba éliminer Ousmane sonku Ousmane Sonko nan la ñuy def ba éliminer ko gis ngeen lu musul am ci histoire Sénégal ak histoire àdduna ministre de la justice tey ci suba quatre heures du matin la dem ci compte Twitter am dugal fa ni dafay def une ci juge bi lan la condamné Ousmane Sonko wax ci wax ju ñaaw a ñaaw ñaaw te lu li ci ëpp dara lu ci dëgg nag Ousmane Sonko da doon dem fu bon dafa doon séq ak Adji Sarr ay séq ak da doon def lii foofu ay jigéen yu jaay seen bopp capitaine Touré moo ko wax capitaine Touré ak médecin bi moo ko wax. médecin bi bind na communiqué nee na musuma wax ni aji Sarr mii ma gis góor seq naa ak moom musuma ko wax.

lan moo tax man ministre de la justice di bind une note kan lay bindal note bi kan moo soxla note bi peuple sénégalais kon kay day def déclaration télé mais da koo def Twitter parce que Twitter waa communauté internationale bi la ci jublu bu pour waajal nit ñi ci xel bind na ci ba bind nan la ñu war a jàppee Ousmane Sonko waaw. nan lañ koy jàppee bu décision bi buñ ko jotee dinañ ko publier ci journaux yi buñ ko publier ci journaux yi ba pare yóbbu ko kër gi mu dëkkoon wala fañ ko xam taf ko fa buñ paree jàpp ko ñoom ñoo ko wax tey jii donc ñun suñu problème waa parce que suñu yoon nekkul ci Macky Sall bàyyi candidature kooku ñun nañ ko fàtte su ko waxoon xam na ni peuple bi la kooku c'était un combat du peuple sénégalais ñoo ko reculer loo léegi nag ñun ñoo war a xool nan la def pour dëggal candidature Ousmane Sonko moom xamna ni tay ji amul ci Sénégal ko xamni buñ booloo woon ñoom ñëpp Ousmane Sonko gagné len dès le premier tour koku xamna ko communauté internationale bi yëg nañ ko waaw Pastef mu ngi xeex ak benn état pendant ñaari at ñaari at état bu am budget recruter luy recruter yokk soldats yi ñi ñi ñi ñi libéré woon ci armée mu engagé leen ñi libéré woon gendarmerie mu engagé leen yokk yokk pendant ñaari at ngay xeex ak benn parti gëm-gëmu sénégalais yi adhésion bi ñu am ci projet Pastef kóolute gi ñu kóolu Ousmane Sonko mi ko jiitu moom moo tax malgré état baa ngi xeex ak depuis mars 2021 mille vingt et un loolu musul am ci Sénégal état bu jël moins financier logistique policier de répression ak yépp teg ko di xeex ak benn parti boo xamante ni musul parti boo xam ni financé mais mais parti boo xam ni discours am dafa tas ci xolu sénégalais yi ba sénégalais yi ñoo parti bi ni parti ni sénégalais yi pas Pastef fas xex xeex ak Pastef xeexal Pastef li mo tax tay batay ji ñuy wax Pastef malgré pexe yi ñu def pour éliminer Ousmane Sonko légui nak combat bi mu ngi soog commencé na population yi ni Macky Sall li nga waxone ni doo bokk bàyyi nga duñ fi nek dila jaajeufal mu ngi melni ku waroon julli ji dem julli kenn du fi nek dila la wala dila euh, may ay ay ay concert dangaa ngaa war a julli ji julli nga da nga ñoo dénkoon xaalisu jàmbur delloo nga xaalis bi dañ laa war a tàccu di di di may ay conseil déedéet donc nag pare nga na nga am ngor ba nga génn ci réew mi ci jàmm maanaam nga fexe ba organiser ay élection yoo xam ni ki war a jiitu ki fi war a ñëw moo fi ñëw gis nga nit ñi dépassé nañ yéen li nekk seen xel yow bul jàpp ni yàgg Ousmane Sonko yéen a bokk. yow sa projet ba ngay yéeg moo doon fayonte liquide ay adversaire liquider liquider rek liquider ay adversaire Ousmane Sonko problème bi mu am bu jëlee réew mi xam nga mooy lan nan lañ fiy jëlee abri provisoire ci benn at nan lay tabaxee hôpitaux yu bees ci benn at wala ñaari at nan lay fexee ba kuy demati Casamance kuy demati Kolda kuy demati Kédougou dootoo sonnati ci tali problème am mooy nan la sunu doom yi bañ a génnati ci réew mi di dee ci àll bi li nga tal yow defone ni moom bu euh, euh, day fayu comme ni nga don def yeen ñaar bokk len logiciel bokk len logiciel mom développement réew mi moo ñor donc liñ lay ñaan moy nga genn ndank ci réew mi nga organiser li ma doon wax une période de transition ce constitution bi baaxul constitution bi président bu ko yor nek dictateur nga réformer ce justice aux ordres bi musiba nga ñu bayil nga lever barrière yi nekk kër Ousmane Sonko lever ko barrière yi nekk kër Ousmane Sonko lever ko parce que lii ñaaw na dafa ñaaw bàyyi ko détenu politique yi génn leen montreel ay mesures d'apaisement nga xam ni li yàlla def mooy ki war a yor réew mi nga permettre ko mu yor ko ci jàmm mais discours um président Macky bi war na tiital ku ne nee dëkk bi dafa am ay forces occultes lan mooy force occulte kenn mënul définir force occulte maanaam ay sàmbaabo yu jóge bitim réew ñëw lëngaloog lëkkaloog manifestant yi pour taal réew mi président war naa wax lool Sénégal am la meilleure armée d'Afrique de l'Ouest le meilleur service de renseignement militaire ak policier Gendarmerie ak euh, militaire yi 4 avril 2021 bi ngeen njëkkee wax force occulte génn nañ le 4 avril 2021

dina exécuter les décisions de justice loolu waxul ak kenn ku Ousmane Sonko exécuter décision de justice waxul fi ba may joxe réew mi dinaa fexe nit ñi liggéey waxul fi ba ba may joxe réew mi fexe agresseur dootu fi am Fi ba ba may joxe réew mi dinaa fexe kenn du sacc xaalisu dëkk bi Fi ba ba may joxe réew mi fexe nawet bi incha allah inondation do am mais nee dina exécuter décision de justice avec fermeté manam li ñu gàll ci ndodul Ousmane Sonko yon dina dem ba fa mu war yegg ak mom motax nak ñun ñu xamni suñu sunu combat mu ngi wow, Usman waaw Ousmane Sonko day bok ci election yi parodie de justice bi ngeen def xam ngeen ni yeen c'est une parodie de justice da ngeen ci wara delu